ci gépp doyadi goo xam ne ab jaam da koy doyadi di ko néew kàttan di ko aajowoo boroomam subhaanahu wa taala ñoo ngi ko koy aajowoo waaye di ko ñaan mu defal ñu jàmm jàmm joo xam ne day ànd ak wér jàmm joo xam ne day ànd ak teggal ñu jafe-jafe yi nga xam ne moom la àdduna di dund defal ñu jàmmi àdduna defal ñu jàmmi alaaxira fi dunya xasana wa fil axirati xasana yàlla mën na ko yàlla nañu ko boole defal ñoo ngi bëgg bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun ci jotaay bi rawatina jamono ji nga xam ne ñi ngi waxtaane téere borom bi subhaanahu wa taala di alquraanul karim ndax dañoo nekkoon ci yi ko jiitu jaaroon ci yu baree bari ci wàllu julleeg yi nga xam ne moo ci aju waaye yooyu yëpp dafa am loo xam ne moo ko jàngale ci biiram la nekk te it am delluwaay boo xamante ne jullit bi da koy dellu ci moom am lëkkaloo gu dox digganteem ak jullit bi ak buum gu rëy takke leen loolu nag mooy waxi suñu borom subhaanahu wa taala waxam jooju nga xam ni moo ñëw ngir regleel nit ki ak dundam ba àddunaam neex ak dundam jag mu noppalu noppale ndax ab jullit moom li borom bi di njëkk a def ci moom yeneent bi alayhi salaatu wasalaam yar ko ci te wom mat ko ci jëme ko ci mooy mu doon koo xam ne du lor kenn waaye kenn du ko lor maanaam nooflaay bi muy wutal boppam moom lay wutal ñépp du sukk ci du sukkandiku ci fitnaal nit ñi ngir noppalu moom déedéet taxawaay boobu day doon taxawaay boo xam ne da koy sori lool loolu nag téere bi nga xam ne moo ñu ko ñëw ngir regleel ñu ko du benn téere mooy alquranul karim yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na fitna dina ñëw bañ ko laajee fitna jooju di ñëw lan moo ciy génne nit ñi lan mooy solution bi lan mooy maxaraj bi daa waxoon ni kitaabullahi mooy alquranul karim mooy téere borom bi subhaanahu wa taala moo ciy génne nit ñi ci jafe-jafe bépp buñ mën a am ci àdduna ndax téere boobu nga xam ne mooy alquranul karim te nekk ci sa loxo yi wala nga teg ko ci sa saal bi wala sa oto bi wala nga dégg ñu di ko wax naan yàlla nee na nàngam foo ko déggee la ci ëpp ca téere ba la bu dul xadiisul xudsi yi téere boobu moo ñu nettali la jiitu woon ceroog ba yàlla yi bind maam aadama mu taxaw janoo ak malaayika ya malaayika ya nangul ko cër ba ko yàlla jox iblis lànk alxuraan moo ñu ko nettali wax ñu ña lànk fa ñu mujje waaye wax ñu ña déggal borom bi subhaanahu wa taala fa ñu mujje noonu la wàccee ñun ca yonent yàlla noox ak fam mujj ak fam jaar ak gaayam ya jaar ak ñun ci yonent yàlla ibrahim ba agsi ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moom téere boobu loolu la ko waxoon yonent yaa ngi noonu am na ci ñoo xam ne dinaa la nettali seen dund gi ndax mission bi da koo soxla am na ci ñoo xam ne seenu tur rek lay tudd duma la nettali fañ jot a jaar kon alxuraan moo ñu nettali la jiitu woon lii ñëw ëllëg yowmal xiyaam bu ñu suulee ci suñ bàmmeel yi alxuraan moo ñu koy nettali dundug barsàq gaag dundug yowmal xiyaam gi ne ñu ku suul ba won la ginnaaw am na ñaar ñuy ñëw ñoo xamante ne dañ lay laaj si boo tontoo tontu loolu daa bokk ci liy neexal sa tëraayu bàmmeel wala tontu yi bokk ci liy naqaril sa tëraayu bàmmeel alxuraan moo ñu ko wax wax nañu buñ dekkee fa ñuy daje wax nañu nañ fay daje wax nañu ya nga xam ne moo fa dox yépp moom alxuraanul karim moomu li des li nekk ci diggante la woon démb ak lay ñëw suba loolu itam moo ñu ko leeralal maanaam won ñu nan lañ war a mel ci suñu diggante yi yan melokaan lañ war a am nan lañ war a déggoo yan lañ war a bàyyantee xel nan lañ war a toppe borom bi nan lañ war a amee mat gu toll ne lu ñëw nga xam ni nga koy jëlee loolu alxuraanul karim moo ñu ko jàngal di wax joo xamante ne kenn dootu wax lu mel ne moom ba suñ borom sampee ndëndëm meeg léegi eh, yàgg na lool waaye kenn filagu ko ne woon na leen indi leenu saar dem na ba naan indi leen aaya làkki arab moom mën naa yomb ndax ñi ko dégg a ngi fi waaye wax lu mel ne alquranul karim loolu mooy li nga xam ne mool te ñëpp loolu nag mooy mujjiza mooy loo xam ne ñëpp a ci lot waxoon naa la démb ne ba ko jinne ya déggee ñoom dañoo yéemu gëm seen borom ca saasa nit nag léeg-léeg ñu koy jàngal mu naan waaw waaye waaw moom kay nangam waaw cest diir waaw mbir mi jar naa seetaat loolu moom mbirum nit la moo tax borom bi nañu woon alquran mi ma wàccee ci yéen de bu wàccoon ci montagne yi montagne yi day tiit ba toj law anzalna haadha alqurana ala jabalin la am xaachi'an mutasaddi'an min xasyatillah waaye loolu yàlla neen dama koo def misaal won leen ne montagne yi ni mu toll te bu ñu wàccee woon ci alxuraan ci moom mu nekkub dóom wala mu mu nooy nipp ba mel ni sunguf wa tilkal amsaalu nadribuha linnaasi rek dama koo tegal nit ñi ne misaal waaye bëgg rek ngeen xalaat ci li ma leen envoyé li ma leen yónnee muy alxuraanul karim nan ngeen ko war a jàppee gan buum moo leen war a takke ak moom nan ngeen ko war a dunde ginne yi bu dee ndundat yi ci ñi ci ëpp doole lañ bokk ñoom bañ ne dégg nañ alquran lañ ca teg mooy ajaba yahdi di rusdi fa amanna bi muy oriente jëme ci njub ñu daal di gëm ca saasa téere boobu ma la doon waxtaanal ci ay ngëneelam ak teggi ki koy jàng yi mu war a sàmmonteel ak teggi ni ki koy dégg maa ngi ci ngëneel yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na dee leen jàng alquran ndax alquran ëllëg yowmal xiyaam day tinul ñi nga xam ne ñooy ay ñoñam léegi nag yow yaay yaa ma gën a xam sa bopp mantam maa la gën a xam sama bopp kenn ku ne day xool moom ñooñu alxuraan fan la yem ci moom ndax da koy jàng wala ndax da koo gëm ñaari yëf yu wuute la bu dee da koy jàng xëy na daa nekk ci milieu buñ koy jàngee taw féex dikkal ko ñu koy firil muy dégg waaye bu ko gëmee nag da koy dund bu ko gëmee da koy dund ci kemtalaayal kàttanam lu dul li ab système dox digganteem ak mu dund ko am na ci loo xam ne moom nguur a koy doxal moo tax diine bam mu sosoo ba nëga ni day ànd ak pouvoir maanaam ab sëriñ bu njëkk ki ñuy wax ne mooy kilifa gi day fekk mu am dooley mën a dogal ndax àtte yeeg mbir yeeg yooyu daa war a am pouvoir bu toll ne bu ko bëggee samp man koo samp ñun kay léegi liñ jël diine ji ber ko rek waa diine ñoom di ñaan dimbal di ñaan njekk ak dimbali leen ñu ci nangam nga xam ne jàppoo ne da ngaa war a nekk ab député wala da war a nekk ab ministre ba pare nekk ab sëriñ sëriñ nag dëggantaan njaay laa wax boo xamante ne bu amee sant wi ñu jàppee ab sëriñ it day am njàng muy tax mu doonub sëriñ waaye la muy yëngutu du mel ne ñam fa fekk ci lu bari waaye day delluwaat mbàtt mi ci ndaal daara li nga xam ne moom la root diwoo ko bañ koy wooyee ab sëriñ ndax bari nañu daara ji di yónni ci politique bi waaye bu ñu demee duñ ñibbisi dañuy dem rek toog dañuy dem rek toog ñoo xamante ne xëy na bu ñuy campagne wala dara mën nañoo yor mbubbum daara ji mën nañoo nuru ñu bokk ci yëf yi mën nañoo nanga waaye bis bu ñu faloo rek li lay njëkk a wax mooy yow comprendre xamoo ni système bi di doxee man moom war nañ maa wax lan moo nekk système mooy lan ak mbir yi lan lañ comprendre wul dal ba ku falu rek lim lay njëkk wax mooy comprendre mbir yi ni ngeen ko fooge demeewul noonu donte nag am na ci ay jàmbaar lool léeg-léeg ma waxee noonu waaye tëgtalewul ne dama boole ñëpp ci mbuus waaye koo xam ne mucc na ci rek na jàpp ne maa ngi koy ci jéem a musal ci sama kàddu njortu naa ne mucc ci te fekk mu mucc ci it borom bi la yàlla mooñaale borom bi moom mooñaale nit léeg-léeg muy am loo xam ne mën naa ne cim xelam te fekk dëppoowut ak dëgg-dëgg gi loolu mën nañ cee bañ mucc waaye alquranul karim mooy téere bi nga xam ne nit ki da ko war a gëm di ko jàng waaye da koo war a fexee dund danaa ci ñëw ci teggi ni njàng ma ak yi nga xam ne moo ci aju ngëneeli téere boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettali na ci xadis bu wér boo xam ne imaam Buxaari ak muslim ñoom ñaar ñëpp indi nañ ko ci seen téere ya saxaaba bi ñuy wax Abdullahi ibnu Omar yal na yàlla gërëm ko moom Abdullah ak baayam Omar nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñeetaane moom ñeetaane ñaari nit rek lañ ko war a def ñeetaane maanaam dafa am ñoo xam ne dañoo mën a ñeetaane ba bu nit soloon ab yére sax ñu ñee ko ci am na jeeg joo xam ne fi mu ne seeni sëy mënta normal ca jeeg jële di sëy nag laa wax lu dut sa moroom moo am nàngam ci dëkk bi wala ci quartier bi faaw nga am ko léeg mu jaral la nga takk taxawal sa jëkkër ba mu ne ñogg waaw te ñuy sëy sëyi cosaan yi laay wax <laughs> ma baa mu waat ko léeg-léeg itam ñeetaane am koo xamante ne ki mu bokkal bureau lu mu def mu bëgg koo def léeg-léeg dana ko jaral dugg ci leb ci banque yi dana ko jaral bokk ci natt yi dana ko jaral lépp ca téyéer ba moom daal lu ne dana ci dugg ndax ñeetaane ki yàlla yónni woon nee na ñaar dong nga jara ñee ñu dul ñaar ñii jëruñoo ñee ñaar ñii moom jar nañoo ñee boo leen ñee amoo ci bàkkaar ndax ñeetaane day yóbbu nit ci iñaan moo tax baat bi sax xaw a nuroo ndax iñaan dañ koy wax xasad ñeetaane yi fii itam baat bi mu jëfandikoo mooy laa xasada mooy ak ñeetaane daal wërut fis na tey fitnatayni lu dul ci ñaar ndax ñeetaane nit ki bu lay ñee bu yàggee mu soxore la hmm. ñeetaane gu ëpp loolu tax mag ñi daan ko bañ man mag ñi daan ko bañ ku bari ak ñeetaane ay waay xoolal li diw am ci ay waa ji la diw ak am amam bi bu yàggee rek ci soxor nga jëm ndax teg gi nga ciy teg sa bët mooy gàttal say jéego ba dangay bëgg mu ñàkk ko yem ak yow boo ko ci tegul nag dangay am mat gu toll ne xam ne wërsëg yi daa tolloowut waaye yaa ngi jot sa wàll olof yi dañuy wax ne gub yee sutante rek waaye gubu picc laalut amut mm-hmm. maanaam barke yeeg wërsa yeeg sutura yi mën naa sutante waaye yàlla fàttewut kenn kenn ku nekk yaa ngi jot sa wàll moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaar ñii de jar nañoo ñee ñaar ñii jar nañoo ñee de ñu ne ko ñaar ñooñu mooy kan ak kan mu ne ki ci njëkk mooy koo xam ne borom bi da koo jox alquran allahu akbar mu man koo jàng lool waaye mu bëgg alxuraan lool di ko dund waaw di ko dund di taxaw di liggéeyal alxuraan guddi ak bëccëg allahu akbar di liggéeyal alxuraan guddi di liggéeyal alxuraan bëccëg nga xam ne moom yëngutoom ak dalam gi yépp ci téere borom bi subhaanahu wa taala ci la nekk nee na kooku de jar naa ñee mu ndeysaan am na ci ñoo xam ne fi mu ne ña nga yor ay daara yori doo nga toog mat laa buñ tëdd bu baax sax amuñ ko yàlla xam na ko mat laa bu baax buñ tëdd sax amuñ ko te moo ne seen morom yi ñu doon àndal ñenn ñi ba tukki jotee ñu dem di tukki ñoom mënoon nañoo tukki ne ñoom waaye taa moo toog di jàngale téere borom bi subhaanahu wa taala moo tax ñu tegoo coono yooyu léeg sax nit ñi ñëw di leen xëllamtoo di leen mayi montre ki blouson nañ ma baal wala ñu jaar fa naan sëriñ bi ñaanal ma jox la ay këyit yu weex te dem waaye liggéeyal alquranul karim jaral na leen ñu dëkk ci ay baraak wala ñu dëkk ci néeg kër yu àggagut di ko àbbu boo demoon tey Jurbel da nga fa gis dongo yu baree bari yoo xamante ne nii kuy tabax sa kër rek ba kuule defagoo ay buntu abal leen ko boo demee ba soxla ñu génn àbbaat feneen ndax bëgg a jàng téere borom bi subhaanahu wa taala waaw moo tax léeg ñu naan euh, daara moderne yeeg internat yeeg yu baree bari boo xooloon ñi mën a yóbbu seen doom yi ci réew mi ci internat boo ko doon wàññi du du mat sa baaraam yi ñu néew a néew lañ doon ci société bi te ñu ëpp ci jullit yi bëgg nañ seen doom yi jàng alxuraanul karim ba mokkal ko te suñu jàngukaay yoo xam ne xale yi dañ fay dem ba jàng alxuraan ba mokkal ko gratuit ci condition yi war a nekk yépp état gàddu ko ña koy jéem a gàddu mooy ñay nab nabi rek ñay nab nabi mag ñi dañ daan ami tool donga yi di bay di booleeg jàng man mi ci loolu laa jàngi ci la sama daara bay alaaju maxtaar la bu nawetee nga bay léeg sax ñu tuxal daara ji yóbbu ko ca tool ya ba nawet bi wàcc bu nooree ngay jàng bu àllarbaa nga wuti ñax wala nga wuti matt sayu sayu sayu ñax wala euh, sayu mat mooy doon sa àllarba loola ñu koy am nuñ koy weccax muy ñëwaat ci daara ji dox sa diggante yelwaani waaye ñooñu seen dund gi yépp dañ koo joxoon alquranul karim allahu akbar dañ koo joxoon alquranul karim maa ngi fàttaliku ñun ca daara ja bay alaaji maxtaar mi ma doon jàngal fi euh, la demoon na ba bët yi dafa naqari lool yàlla xam na ko te weer yum takk sax ba mën a liir téere bi amu ko te kaamil bu weex doo nga am ci daara ji amut beneen nga xam ne kaamil bi am rat lañ jël rat lañ jël baxal rat mi ba mu sonn nga xam ne dafa mboq ñu jël këyit yi xooj ko ci ci kaamil bi xooj ko ci maanaam ci ndoxum rat mi nga xam dañ koo cuub dañoo jël kaamil bi cuub ko léegi këyit yi daal di daal di doon këyit yu sonn mu door koo mën a liir te daa mujj yàgg daanaka bët ya sëgg ba boo ñëwee danaan la foo yemoon nga wax ko rek mun la tàmbalil nga tàmbali te taxut ñi bàyyi njàngaleem alxuraanul karim ci lañ nekk ba dëkkaale jeeg seen borom subhaanahu wa taala damaa jël ci moom misaal ndax moo ma gën a jege waaye bari na ñooñ seen dund gi yëpp alxuraanul karim lañ ko jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kooku ku xamoon li ko yàlla dencal ëllëg yowmal xiyaam danga ko ñee ku xamoon li ko yàlla dencal ëllëg yowmal xiyaam da nga ko ñee lool waaw da nga ko ñee da nga ko ñee ki jara ñee mooy ki nga xam ne borom bi da koo jox alxuraan waaye fii ataahu llaahu alquran la wax maanaam borom bi da koo jox alxuraanul karim mayuk borom bi lay doon ak xéewalam bul yaakaar ne ak njàmbaar rek la ñi demoon daara ñëpp mokkaluñ alxuraan ñi demoon daara ñëpp wéyuñu di liggéeyal alquran am na ñoo xam ne dañ naan la mokkaloon naa waaye man fàtte naa bu yàgg ndax daa mokkal rek dem defi leneen dagg relation xaritoo gi mu amoon ak téere bi téere bi dagg xaritoo gi mu amoon ak moom moom am na fulla ju toll ne boo koy ba mu lay bàyyi waaw boo koy ba rek mu lay bàyyi dem ci keneen ku ko soxla waaye nag li ci amaat solo mooy ki am alxuraan ba noppi nag di ci taxaw guddi ak bëccëg maanaam defut alxuraan ji fiir goo xam ne da ciy fiir àdduna looloo jar naa bàyyi xel bari na lu yàq ci daara yàqu ci diine ji boroom xam-xam buy rëbb àddunaa ko yàq waaw nañ ma baalati de maa ngi jéglu bu baax waaye ginnaaw bi mu xamee ba noppi ci biir xam-xam bi ci lay nax nit ñi te ñi muy nax dofuñu gis nga boo nekkee boroom xam-xam ba noppi di naxe ñi ngay nax dofuñu waaye dañoo yaakaar ne yow doom naxekat loolu doo nga tax nga man leen naxkat dañoo jàpp ne naxekat yaa ngi ci mbedd mi doonuñu ñu yor téere bi waaye yow bolog bi nga sol ni ngay jànge alquran ji ni ngay waxe sallallahu alayhi wa sallam yi nga amee day tax buy jëfandikook yow xelam mu baree bari dootu ko xalaatati day bàyyeeku rek bu ko defee nga tëral ko rendee ko ginnaaw ba taxale bopp beeg baat bi siggi jàpp ne nit ñi dañoo dof fekk dofuñu dañ laa tegut ab workat waaw bari na ku lay nax bari na koy nax yàlla xam na ne gàttut xel waaye dafa yaakaar ne yow doom naxekat rek moo tax boo koy nax day metti waaye ki am alquran ba noppi nag di ko dund kooku mooy ki jarañee waaw ki am alxuraan ba noppi di ko dund di ko dund guddi di ko dund bëccëg yi waaw ndax du boroom xam du xam-xam yépp am njariñ waaye du boroom xam-xam yépp a yem waaw du bor du am njariñ du boroom xam-xam yépp a yem waaw fa laysa kulla ilmin nafan saxtiwa wa laysa kulla ulamain fistiwa loolu Sëñ Tuubaa waxoon ci masaalikul jinaan nee na du xam-xam yépp a am njariñ du boroom xam-xam yépp a yem ndax fa fil ulumi maa yu xassil xalbaa wa yujibul kibra wa yansa rabba am na ci xam-xam yi yooy day wowal ab xol day fàtteloo borom bi day waral ak rëy waaye nee na am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne seenu fay ëllëg yowmal xiyaam euh, du weesu rek lu dul yeddaange du weesu lu dul toroxtaange taxaw ci kanam borom bi mu lay yedd te lu mu wax nga xam ne jàngoon nga ko xam nga ko waaye yaa ko jàngoon ba noppi ni ko fa ñukk wane ko ginnaaw wala nga koy rëbbe àdduna loolu daray àdduna jëru ko moo tax ki jarañee ku njëkk ki mooy ki nga xam ne borom bi da koo jox alquran da koo jox alquran allahu akbar ku man alquran jar naa ñee bu ci am benn complexe na nga ko ñee waaw na ko ñee na nga ñaan yàlla mu def la ne moom léeg sax laaj ko foo jaar ba man lii nga jéem waaye ginnaaw ba loolu amee nag mu di ci taxaw nag ana al layli wa an nahar waaw di ko dundal ci guddi yi di sonne alquran guddi di ko sonne ba bëccëg koo koy ku njëkk ki ku ñaareel ki taxuñoo jóg ci bind bi waaye daa duggante ndax ñeetaani gi hadis bi doon indee tax nee na mooy ki nga xam ne borom bi da koo jox alal allahu akbar da koo jox alal ndekete yow mi mokkal alxuraan man ko di ko dund gis nga bu ñu la fi bàyyee dem di rangi ka yor ay milliards yéen ñaare yam ci li ngeen am bul jàpp ne bi nga amee alxuraan ñàkkati nga dara lu waaye amati ëppleetu la waaw njëg yi daa wuute rek marché bi ñuy jaayee da ngeen a wuute lu nekk seen i poos waaye ëpplewu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na borom alal jar naa ñee waaye borom alal ji jarañee mooy ki nga xam ne day dépensé alalam guddi yi ak bëccëg yi waaw di dépensé alalam ci yoonu yàlla guddi di dépensé ci alalam ci yoonu yàlla bëccëg jamono ji ñu toll nga toog ñu nett li ne la diw lu mat nangami buntu kër moo leen gàddul ab ci jamonoy ñàkk gii jënd na ceeb jox leen jënd na suukar jox leen jënd na diw jox leen te moo ne ñoom sax xamuñ ne moo leen ko jaf moo leen ko defal ndax diw la ko jox rek diw séddale ko ne leen waaju baaxa leen ko defal nga ñee ko ci sa nox noxi nga ñee ko ñee ko ci tiyaabaam jooju moo am ak jëfam juré ji ñaan borom bi ne wóor la ne boo ko amoon da def ne moom waaw mooy ñeetaane gi waxuñu nga teg ci ay baat ah yi de waaye am na ko gën a soxla de wala nangam loolu moom du nutut ak ñeetaane waaye soxoor piir lay bëgg indi waaw am na ñoo xam ne yàlla xam ne duñ maye nañ ma baal du ñu saraxe du ñu dimbalee te ku dimbalee ñu mer ku mayee ñu mer ku saraxe ñu mer waaw fi ne boo ne woon diw may na diw nangam ñoom ñoo ciy mer waaw commentaire ko am na ñu ko gën a soxla de gars yi de man alal ji ñu mayee jaaxal na ma fu ñu ko jëlee waaye yow sëñ loolu yëpp nga fas yéenee lijjanti <laughs> yow kay santal yàlla rek te ñaan borom bi may la looy mayee may la looy joxe te yàlla tax loolu laa bëgg wax may la looy joxe te yàlla tax daan ne gars yi li ñu mayee fu ko jëlee jaaxal na ma man de gars yi buñ dut dóor jaaxal nañ ma alal moom bu ni koy def nii di saax-saaxee wala moo defoon nangam daal di commencé xool leen déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki jarañ ñee bu ko waxee mooy lam am lu rëy la mooy ki yor alal di ko dépensé ci yoonu yàlla fa huwa yunfiqu ana al leyli wa ana an kooku jar naa ñee ki ma taxoon a jóg ku njëkk ki mooy ki yor alquranul karim di ko taxawee alquran ay ngënee la ma toll noonu ku ko yàlla jox jox na la teraanga ju rëy ku ko yàlla jox jox na la teraanga ju rëy beneen xadis boo xam ne imaam Buxaari indi na ko ca téeréem ba mu bokk ci xadis yi nga xam ne Seydina Ousmane mi nekkoon ñetteelu xalifa bi yonent bi yal yàlla gërëm ko fay ko coono bi mu daj ci lislaam ci alalam ak bakkanam ak yitteem nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki gën ci jullit ñi jullit ñi ñoom ñoo gën waaw loolu nañ ma baal waaye ki gën ci ñoom nee na mooy ki nga xam ne dafa xam alxuraan ba noppi di ko xamle boo doon laaj tey kan moo gën ab liggéey nee na mooy ki xam alquran ba noppi di ko xamle loolu nag dafa am baat bu bari bu muy indaale mooy baatu alquran boobu da ci ciy dégg mooy xam-xame àdduna bépp dafa nekk ci biir alquran ndax waxoon naa la ne tibyaanan li kulli shay'in ki gën daal ci saraaba rek ak gàttal mooy ki ko xam ba noppi di ko xamle yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki nga xam ne day jàng alquran ba noppi di ko ijjantu nga xam ne dafay sonn ca ijji ba comme sama maire yee ca daara ja nga xam ne danga leen joxu saara ñu sonn ci ijji bi door a sonnaat ci boole gi allahu akbar maa ngi leen di nuyu baax door a sonnaat ci boole gi ñoom ak ñeneen ñi nekkul ca daara ja ñépp waaye bu ñuy jàng dañuy sonn di ijjanti yeta tam yeta tax tax waaw di sonn waaw nga xam ne tey bu ñu doon jàng xaa bala ñoo dem bala ñoo wax xaa dañu oh, dañuy ijji ba sa yaram wi daw ñu sonn ci lool alayhi salaatu wasalaam nee na ñoom ñaari yool lañuy am ñaari yool waaw ñaari yool la am waaw di ijjantu sonn ci wa huwa alayhi shaq lahu ajran nee na ñoom dañuy am ñaari yool allahu akbar yoolu coonam njàng mi ak yoolu njàng mi ci boppam moo tax bul tàyyel de bul tàyyel yàlla xam na ko profitool sa kemtalaayal kattan ci fépp foo mën a amee tiyaaba nga daw jëm fa buntub alxuraan bi ubbeeku nag bu mu la raw loolu ci yiw ak ngëneel yi nga xam ne moom la alxuraanul karim am ci laa nekk beneen xadis boo xam ne tirmis yi moo ko indi mu bokk ci abdullahi xadis yi abdullahi ibnu mas'ud yi yal na yàlla gërëm ko moom it ci borom xam-xam yi la bokk ñoom abdullahi yooyu abdullahi ibnu omar abdullahi ibnu abbas abdullahi ibnu mas'ud nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku jàng benn araf wala wenn araf ci téere borom bi subhaanahu wa ci alxuraan nga jàng ci wenn araf rek nee na am na tiyaaba am na ci ak fay am na ci ak fay te genn fay gune dañ ko koy fulal fukki fay waaw dañ koy fulal fukki tiyaaba te Oustaz Alioune Sall ne woon na ma tiyaaba buñ ko juugoon wala buñ ko jóoroon mu di jal ki war gëléem jóg 9 di ko wër bu mu di jotee lay dellu si ci fi mu déparé woon benn tiyaaba donc ki yàlla yónni woon ci ñun nee na ku wax benn aaya ci alquranul karim am na benn tiyaaba te benn tiyaaba bu ne dañ koy fulal muy fukk day mel ni fukki tiyaaba daan ñuy leeral nag wax ñu ne waxuma alif laam miim wala allahu wala rabbi déedéet nee loolu du xaraf de loolu ab baat la <laughs> nee ci misaal tey boo noon alif laam miim nee na alif xarfu la waaw fukki tiyaaba nga ciy am laam nga am ci fukki tiyaaba nga am ci fukki tiyaaba allahu akbar waaw kon yiw yi nekk ci alxuraan dafa rëy waaw yiw yi ci nekk dafa rëy de nañ ko def muy suñu xarit ñu di ko wéttilikoo danaa ci ñëw moo tax tiyaaba ju jooju kenn mënu koo am ci alxuraan lu dul ne dafa jàng teggin yi mu war a am bu koy jàng teggin yi mu war a am nga xam ne li ci jiitu mooy mu di ko jàng ngir jëmmi boroomam subhaanahu wa taala danaa ci ñëw bu ëllëgee yal yàlla may ñu dund ba suba ta weesu ko ginnaaw bu ñoppee ci ngënee li ñu waxtaane teggiini kiy jàng alxuraanul karim nan la war a mel nan la war a mel nan la war a amu melokaan ci bi mu koy jàng ak ni nga xamante ne noonu lay mel ba alxuraanul karim jooju def jeexital ci moom yal nañu yàlla may ñu dund ba suba weesu ko ñoo ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax te di leen ndokkeel di bëgg ci ni ngeen di ànd ak ñun suñu jotaay bii di almisbaax di ndokkeel ñi nga xam ne ñoo ñuy woo ak ñi ñuy envoyé message di jéglu bu baax ñi nga xam ne ñoo ñuy woote duñ ñu jot di jéglu bu baax ñi nga xam ne léeg-léeg ñu envoyé ñu message muy vocal ci whatsapp bi te duñ ko déglu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal def ñu ñuy dund alquranul karim tam def ñu tam defal ñu fayub alquranul karim rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi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 wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahumma aafini fi badani allahumma aafini fi sam'i اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أذكار الصباح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم